cas de ngi Touré et Jeune Afrique parce que gis ñu bind ko tout à mm-hmm. la l'a mm-hmm. ci laa laa xam ne sax parce que boobu daf loolu dama rëcc mm-hmm. ci laa xam ne nekk am na moom ak benn benn kii benn benn ay wax daal ay genre werante entre moom ak le camp le camp de de de Karim Wade que loolu c'est depuis un certain temps ça revient régulièrement parce que moom dañ koy accuser d'être euh, à l'origine de l'arrestation de Karim Wade de, de son emprisonnement tout tout c'est un débat qui revient tout le temps quoi man intervenir naa ci benn jour euh, sur la sur la Sen pour vraiment clarifier les choses. et, et c'était quoi. ah et c'était quoi la clarification. la clarification c'était que man Aliou Ndao c'est moi qui ai pris la décision de l'arrêter Karim Wade. yow yaa jëloon décision teg loxo Karim Wade jëlee ko ci en tant que procureur ma defee sama enquête ba pare ba gendarme indi ma sama dossier tegal ma sama table. ma tout le dossier ci xam ne parmi les que mu figuré donc j'ai fait une liste que j'ai envoyée mais xam nga gars yi rek toujours dañ dañ koy attaqué quoi. mais mais en tant que procureur amoon na ku lay jox ay ay ay ay ay décision ay ay maanaam. ah non non non mais arrestation moom y' a pas y' a def sa enquête. mais pourquoi Karim ci moment boobu noonu ngeen jublu directement ci moom parce que régime bi. bu weesu ngeen waroon a auditer seen i dirigeants wala. parce que dañoo defoon une liste de de vingt cinq personne kan moo defoon liste vingt cinq personnes. boobu nag la presse dit que c'est moi Aliou Ndao et c'est pas moi. ah qui alors. Euh, j'ai expliqué dans une émission que euh, avant ma dem à la CREI j'étais au la cour la cour d'appel. benn jour le procureur général m'a appelé. procureur yëpp des kàddu yi mu xaw a kii. <laughs> waaw waaw noonu baax na. Euh, maanaam. Euh, dama nekkoon avant mu dem CREI maa ngi woon parquet général. maa doon le premier avocat général la cour d'appel de Dakar. Uh-huh. benn jour euh, procureur général. Uh-huh. woo ma mu ñëw fekk mu def benn genre de bloc note. Uh-huh. mu yor benn bloc note y avait une de personnes. léegi li ma wax mooy. que naa def une lettre adressée ko au procureur de Dakar à l'époque Ousmane Diagne pour mu bloquer les comptes de ces personnes-là mais man ma retourné ko ne je je ma répondre ko ne ko tontu compte nit te amul enquête amul dara d'accord donc au préalable il faut que ñu ubbi une enquête mmh. et ko nag yow euh, faut convaincre ñi nga ñi la demandé pour nga pour nga bloquer compte yi nga ne expliquer leen ne que on ne peut pas mënuñu bloquer ay compte jàmbur na nga du du jour te amul une procédure judiciaire pour et donc c'est comme ça que finalement il m'a demandé de, de faire une lettre adressée au procureur de Dakar Ousmane Diagne mu demandé ko mu en lui demandant d'ouvrir une enquête et dans cette enquête bloquer les comptes de ces personnes-là et c'est noonu la ñu rédiger la liste de ces personnes-là ah, sur la base du diplôme nag qu'il avait. ci la rédiger la liste envoyé ko moom mu commencé ay enquête mhm. mais bi ñu demee ba ci biir euh, moom xam na ne ñu wax ko ne ko que domaine bi ngay dugg tudd sa domaine enrichissement illicite du domaine procureur euh, de la République. ci après nag la ñu taxawal kër yi man ma dem récupérer tous les dossiers yi xam ne soo fàttalikoo ne boobu la ñu jàppoon Ousmane Met Ousmane Ngom. à Kolda bi mu nekk ci en campagne pour les législatives. waaw c' était dans le cadre de de cette enquête là. oui euh, Ousmane Diagne doon mën. oui léegi maintenant ñu taxawee les cris yi xam naa ne Ousmane Diagne il a il a mené il a fait mener des enquêtes. Mm-hmm. ma dem jëli les résultats de toutes ces enquêtes là ci ay carton lañ ko def. Mm-hmm. ñu indi ko et j'ai commencé par. ubbi na. ubbi na waaw. ok mu ubbi laa dem jëli ko. donc c' est ainsi que j'ai commencé par Karim euh, Wade. Euh, Karim Wade. Madické bokk ci woon. Madické dedans. Aïda bokk ci woon. Eh, non Aïda Diong après la. après la ñu. waaw ah, Aïda la ñu. Oumar Sarr kii bokk ci woon Oumar Sarr ci la bokk. Euh, Samuel Samuel était dedans. Mhm. bon ils étaient sept. oui au départ dama jukki ci ñooñu sept yëndu par travailler sur le dossier Karim. ok noonu looloo looloo waral. kon Aminata Touré parce que dossier Karim moo njëkk a moo njëkk a atterri sur en tant que procureur. donc j'ai fait une enquête dama def lu enquête pendant six mois léegi dossier Karim moom lañ leen moom la gendarme njëkk indi. Hmm. léegi pendant ce temps ñu ngi doon def enquête ci yeneen dossiers yi. Hmm. mais bi njëkk a pare mooy dossier Karim. d'accord kon loolu loolu waral ñu ñu ñu ko à l'instruction en premier lieu. Hmm. parce que boobu yeneen dossiers yi ñëwagul. voilà après le tay bu Ndiaye ñëw. Euh, ay da jong ñëw noonu kon pour parce que dossier dañu ñëw au compte courant du ñëppoon ñëwandoo. kon lu waraloon ñu dugg foofu mooy maanaam Aminata Touré mi ñuy jiiñ. mais moom moo jàppalu Karim wax naa ko waxaat ko man mii Aliou Ndao jàppalu Karim Wade. kon point boobu leer na point boobu leer na.